am na beneen émission bu lay xaar mais bu ñëwaatee justement ci xibaar bi nga xam ne dem ak tey ñu ngi koy wasaare que fi doonoon président di président Macky dafa war a ñëw boobaax léegi nag coow li bëri na ñëwee warta ñibbi dañ ko war a teg loxo ci par rapport ak li ñu koy tuumaal ne moo ko def ci réew mi yow en tant que juriste jàpp nga ne c'est facile comme ça mu ñëw rek après ñu bëgg ko teg loxo ne doo génn ak yooyu. Ah, am amagul ko tënk de. waay justement. ci yoon amagul euh, am na droit dem ba il est libre quoi. Si on, si on est sénégalais. Oui. De surcroît, si on lance un président qui n'est pas comme moi. Oui. Le Sénégalais aussi, il faut une manière de politique. Le président de la République, constitution du Sénégal, moom moo ne lenn rek nga ko mun toppee luy loolu ñuy tudd haute trahison. Et la haute trahison, c'est une infraction qui existe, mais il a pas une définition juridique de la haute trahison. Mooy haute trahison constitution bu Sénégal wax na ko. nee na lii lañ mën a toppee ancien njiitu réewum bu Sénégal. Mhm. waaye amul fenn fu nu wax ne lii mooy màndargal haute trahison. Mhm. donc il y a pas une définition claire juridique exacte concise explicite boo xamante ni sénégalais bi nga xam ne jàngul sax xam na lu muy tekki. amul léegi nag droit daf na bu fekkente ni da nga bëgg a jàpp nit. il faut infraction bi lenn moo koy lenn mooy tax mu exister. Mhm. mooy loo xamante ni infraction yi boo mu am l' aspect matériel. Hmm. mooy loo xamante ni gis nga ne lii lu am la. il faut mu am aspect légal mooy que ni loi bi prévoir ko ak li nga xamante ni l' aspect intentionnel mooy nit ki amoon na yéen def ko. lii bu dajewul nee nañ quelque soit même bu dee yaa def lii bu ñett bu dajewul mënoo jàpp nit mënoo ko tëj loolu loolu la yoon wax léegi li ñu tuddee haute trahison puisque amul définition mun na am interprétation ci ki nga xamante ni moom moo bëgg a toppaate. Hmm. mu procureur mu gis ay fait mu gis ay jëf mu gis ay attitude mu jàpp ne lii c'est assimilable à la haute trahison maanaam lii mun na nekk haute trahison. mun na méngóog moom mu méngóog moom mu jàpp mu ne président mun nañu toppee lii mais président de la république mu ñëw ci ngénte mu ñëw ci dëj wala mu ñëw ci mariage. Euh, jotewu la dara jàpp. oui ci koo xam ne lancé wuñ ko mu nekk Maroc buñ ko bëggee jàpp am nañ yoon bu ñuy jaar pour ñu jàpp ko parce que Maroc boobu nga xamante ne wala ne le Sénégal et le Maroc dañoo am lu ñu tuddee une coopération qui est à la limite bilatérale multiforme et euh, avec la France. France ak Sénégal dañoo am ce qu'on appelle une coopération judiciaire c'est pas un si la France a besoin d'un citoyen français bu nekk Sénégal te mu def toj-toj Sénégal dina def tout pour delloo ko ko si sénégalais amee également problème sénégalais bu nekk France ñu jàpp ne yoonu Sénégal da koo soxla. Mhm. dinañ ko indi fii ñu àtte ko. loolu du problème. bi mooy est-ce qu'il y a dossier qui est également sur table bi war a tax ñu topp Macky Sall. loolu kay amul moom <laughs> loolu amul ah sénégalais ñuy wax rek ne dañ ko war a jàpp parce que. Euh, li fi jëf lu doy waar la. mais même bu dee doy na waar. oui mën a def am yoon. cest à ma. ma génn réew mi ñu woo ma mariage mu ñëw se mu ñëw fekkee mariage bi dam nga no ma si damay jàppee ok yow su dee da nga def ne jàpp ne ne gis naa et je pense que le président de la république ñi nga xam ñoo koy laaj question yooyu dañ ko war a laaj président de la république dégg nañu euh, mandat d'arrêt contre Macky Sall contre l'ancien président parce qu'il aurait fait. loolu kay amul il aurait commandité tout ce qui s'est passé sous ses yeux c'est assez quand même assez grave pour la première fois dans l'histoire de ce pays, parce que oui. cela, ce sera la première fois, est que vous envisagez quand même ouvrir un contre lui à ce propos Et là, on saura fan lañ jëm ci question boobu parce que loolu boo ko bëggee régler en fait tu vas modifier la constitution et quand tu tu la tu la constitution les faits sont antérieurs dire que la modification de la constitution mën na entraîner nga ne euh, parce que loolu il faut ñu am xam France dafa wuute ak Sénégal France. en ci fonction présidentielle. oui oui le président de la république dañ ko ne dafa amoon au début je pense que c'est en 2013 lañ ko modifié xaw ma 2012 li amoon Sénégal loolu moo fi am ñu ne président français mënoo ko toppee lu dul haute trahison. mais ñu ne la lépp lu intervenir nga def ko te waruloo ko def durant yow sa fonction présidentielle mu ne la ko toppee ñu ne lépp et fii ñu ne la seule haute trahison c'est-à-dire que de la république mën na sax. gis ay ministre am def yi bi yi bi tappale moom du ci wax wala bu même bu ci waxul hmm. moom il n'est pas responsable et la constitution moo wax loolu moom le président n'est pas responsable des actes des ministres ministres yu actes yuy le président il n'est pas responsable pénalement et c'est pourtant celui qui et ça c'est problème c'est-à-dire comment man naan laa lay no nommer. mooy dañoo dem ci ci ci incohérence ay textes en gestion cest on n'a pas de constitutionnel waay responsabilité boobu. mooy tax ne mu mu am droit de regard sur les ministres. au-delà de la coordination du premier ministre mais mu xam ministre bu nekk lan lay def ci ministère bi. ok maanaam nan lay génnee xaalis nan lay dépenser ak nan lay. diriger ministère boobu noonu parce que à la limite à la fin de compte. Mhm. quand le mandat du président finira mais c'est lui moom la ñu wax defar na BRT est-ce que mos nga gis ñu naan BRT ñu tudd Mansour Faye. non non et pourtant moo ministre des transports non. mais quand on dit BRT on dit Ablaye Wade. quand on dit monument de la Renaissance on dit plutôt Macky quand on dit monument de la Renaissance on dit Ablaye posées par ses ministres parce oui. que c'est lui qui les a nommés. Oui. Parce que moi, qui ai je suis pas responsable. Okay. le président ne se pas responsable devant de ces ministres-là Et au-delà de ça, car dit que Macky Sall c'est un Sénégalais oui. euh, comme tous oui. les Sénégalais oui. su ma ko invité bu jàppee ne war na mën a son mariage c'est pas un problème <laughs> maintenant bu ñu ko waree bu ñu ko waree toog si yeneen mbir loolu état moom mooy xool prévu c'est prévu de poursuivre un président de la République. Ouais, ouais. Mais pour haute trahison. Mm -hmm. Mais la haute trahison n'a jamais été définie juridiquement. ok ça a toujours dit eh, professeur naka nga jàngatee coow li bëri naa bi ñu ne président dafa war a ñëwaat. waaw ñu génn réew mi parce que apparemment il a causé beaucoup de fitna ci bi. Eh, sur le plan technique la waay waay na situation bi c'est clair. je pense lu mu wax c'est très clair. man je pense que aussi sénégalais yi dañu war a xam nag. y um problème mais Macky Sall amoon na jafe-jafe ak Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mhm. mais bi ñu génn kaso ba léegi dangaa mës a dëgg yu Sonko wala Diomaye ñuy xas Macky Sall man de dëgg bi mu génnee sax ah, ah, ñu Amadou la ñu attaqué ah. Amadou Amadou Ba la ñu attaqué ñu ne à la limite ma ñu ma leen déggul mooy oh le pauvre Macky Sall il s'est même fait trahir par Amadou Ba. c'est lui le monstre. je sais pas noonu laa ko gisee. te ba léegi. kon est-ce que da nga non man du ma wax loolu mais li ma la mën a wax mooy. le président Diomaye Bassirou Bassirou Diomaye fay mhm. ak président Macky Sall réeroo ñu. parce que fonds eurobond yi ñu jël Macky bu ko neexul woon du am. waaw ci nguuram la. non non c' est pas ça c' est son équipe. ku mel ni Tony Blair mais xaritu Macky Sall la te Tony Blair moo jàpp jàppale pour ñu mun a am eurobond am na affaire yu bari yoo xam ne am na fii. mais ay boo gisee ñu mel ni eh, comment s'appelle Rwandais Paul Kagame. ñu ñëw seet si. Jomaay eh, Jomaay. mais kooku xaritu Macky Sall la nga jàpp ne loxo Macky mu ngi ci nguur gi ba léegi. bien sûr bien sûr non non c'est-à-dire yi nañu bàyyi loolu. techniquement mënuñu ko toppee. en tout cas du léegi mënuñu ko topp parce que le président de la République il est irresponsable. ensuite il y a l'amnistie parce que fait yi nga xam ne ñu ngi koy invoké fait yooyu yëpp mun na dugg ci affaire loi d'amnistie rax ci dolli ñoom ñoo am majorité à l'Assemblée nationale donc au haute cour de justice assemblée nationale moo koy formé foo koy formé am amoo majorité de la euh, au niveau de l'assemblée nationale